ak ay membres am soxla su fekkee aussi am ngeen ay garantie day gën a baax par exemple ngeen amoon fonds JIP bi nga xam moo moo nekk seen gannaaw wala leneen ak leneen ak leneen fonds JIP boobu mën na tax américains yi financé la mais à titre individuel yow soo yore sa entreprise bopp nga ñëw ñoom état financier nañ lee laaj nga joxe say état financier man mi nga xam ne tam maa lay introduire foofu dama lay jox un droit de regard maanaam ci Exim Bank man comme que amna fa compte yow dama lay ubbil yow nga meuna gisse dossier yow ni mu évolué ci bir Exim Bank manam su ma la ubbilee da nga meuna xam fan la sa dossier toll ñom en 15 jours ils finance ñom amuñu demal ma ñew ay américain ñom ñoom amul ay ñom dal su lepp matin su dé auto la su dé machine ñaw la cuir wala ngay euh, euh, manam orfèvrerie manam lo soxla amna étage amul lo soxla wul ta amul étage lepp lo soxla dal soo soxla

grande institution yi rek nañuy financer mais ñu mel na ñu ndaw ñi wa artisans yi ñom il faut nga jaar ci une entreprise américaine wa man comme que yalla dafa def ma yoré entreprise américaine man mën na la boot pour que Exim Bank mën le financer wa donc non lay dem man mën na la boot bolé la ak Exim Bank Exim Bank li ma lay jëkkalaat déjà sax man suma la yóbboo ba paré man dañ ma naan demal taxaw fé ndax ki moo ñuy leb moo ñu war a fay donc man li ma am rek moo yóbbu la xam nga présenté la say état financier ak yu demee noonu ba Exim Bank gis ne ah kii kan nga ma indil parce que man tu ma la ko expliqué tey danga soxla ordinateur bi xam nga États-Unis ma nga fay jar trois cent mille man maa la koy jaay xam nga matériel américain lay doon benn loolu ma Exim Bank exigé maanaam foog mu nekk matériel américain ma ne ko amé matériel américain laa jaay si client sénégalais bi maanaam su dee outillage la lu mu munti doon quoi li nga xam ne tailleur la machine ak yu demee noonu mu ne ma ah d' accord naa matériel américain ma ne ko matériel américain la mu ne ma kan mooy fournisseur bi ma jox ko fournisseur bi aux États-Unis waxtaan nañ ci ba pare ba nga d' accord donc man ma jël loolu jox ko Exim Bank Exim banque na ma léegi yow dama taxaw fële waa ji na ma jox état financier am ma jël état finance du mu xool na xam ni ki entreprise bu existe la lii la bëgg lii laa ko mën a lebal mu ne ok xam nga donc moom condition yooyu rek lay laaj maanaam man naa nekk am entreprise américaine li ma lay jaay yow pour mu financer la ko la nekk matériel américain Exim Bank jox la léegi nag la ngeen koy waxante yow yaa koy wax na koy fayee te itam dana laaj ndax am nga banque bu nekk fii nga boole ko ak sa banque

foofu nag moom yow sa bopp dootu la laaj ki euh, euh, nu ñu koy waxati euh, ay ah, waaw sa état financier eh, waaw eh, organisation bi mooy génne ay état financier na ko kii mooy sama état financier moom xamatu la yow mais organisation moo ko naan joxal ma juróomi tailleur yi ay machine xam nga temps de machine ak yu demee noonu quoi mu jox leen machine waaw déedéet déedéet non man euh, man à Exim Bank dans société américaine te as le euh, droit de di déléguer ak Exim Bank et euh, entreprise dans le monde que société américaine alors am le droit déléguer à Exim Bank c'est un choix Hein? Oui. Oui. américaine avantage boobu la le fait que américain léegi comme que société américaine la am naa droit liggéey ak Exim Bank am naa droit itam liggéey ak lu ñuy wax USDA maanaam USDA c'est euh, américains yi dañuy jël seen agriculture yëpp ñu jox ko benn département danga xam ni moom mooy liñ doon wax léegi xam nga comme ni ko ndongo waxee xam nga département boobu mooy xool États-Unis ne ñii nañu bay dugub ñii nañu bay soble ñii dañu bay lee Moi, tamit mooy xool marché bi nakala koy financer ak yu actuellement ils ont mis au niveau de l'Afrique quelque chose comme 800 milliards yi nga xamni pays Afrique Sénégal sax xamu euh, damay wax ay BND ñom ñop dem leen di wax ne leen mais amna ay financement yu américain di joxe yéen banques yi dem leen ngeen laaj leen maanaam ku ku soxla ay chambre froide de stockage wala ay affaire yu demee xam nga mais am na ay pays comme ay Égypte wala ay Asie wala ñoo ñoo si gën a profité que entre euh, waaw mais loolu yëpp tamit baax na ñoo xamee ko après ndànk na parce que américains yi ñun tubaab yi français yi nu ñu gën a miin que américains yi ñun miinuñu américains yi te américains tamit dafa moom marché boppam ak marché ay Arabie Saoudite ak yooyu loolu rek doy na ko léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo leen war a soxla taxawal euh, ki parce que on est trop accroché avec les Français xam nga ñun loolu mooy suñu défaut te ñee bëgg nañ ñëw Afrique mais vraiment ah, xamuñu fu ñu teg seen tànk ñu mel na man rek nañu mën a jaare ñu yóbbu leen ñu gis ñu ñoo xam ne ñii bon c'est des gens te dañu ñeme liggéey nag wax dëgg yàlla dañu ñeme liggéey ñoom caaxaan wax ñu ci dara américain moom liggéey la xam waaw comme ni ma ko doon waxee léegi sooy jaay saak fexeel ba saak bi na nekk saak de qualité waaw la nga ko ca wax moom nag prix amul amul prix moom moom la sa prix mooy prix am waaw parce que ñoom duñu amuñu waxaale mais nag la nga ko wax ca saak ba na na na ca ne waaw léegi tam su la commandé mille saag mille saag benn saak bu ne na mel comme na nga ko wax en ce moment du ngeen am problème waaw foofu nag xaalis moom marché marché maa nga fa xaalis moom wax dëgg yàlla xëy na euh, ñu doon wax léegi sax daan leen wax xaalis moom maa nga fa marché maa nga fa. su da ngay ñaw ay ki ay Lagos ay lo mënti ñaw diko ko yóbbu koy jën mais na nekk qualité na nekk qualité et puis nga botu aussi ci une structure bi nga xam vraiment comme ñi nga xam ne ñoom fi invité daal ci automobile waaw. su fekkee ne automobile la xam nga automobile dafa dafa large te en général voiture américaine yi il y a Buick il y a. Euh, nu ñu Ford une voiture américaine yi aussi c'est un secteur assez intéressant Moi, dafa am à nga délocaliser yóbbu ko Chine ñu ñu ñu fay def usine de montage Ford wala usine de montage voilà. affaire mais man produit yi may jaay maanaam États-Unis nañ ko fabriqué c'est certifié que États-Unis nañ ko monté Voilà. te aussi amener ça, les léegi nag la nga fa soxla ndax auto occasion lay doon wala pièce détachée lay donne wala lu lu mu ci mënti doon rek ñoom ñi mën nañ la boot ba nga xam ni la nga fa soxla da nga ko mën a am su dee oto bu bees lay doon su dee oto occasion lay doon su dee pièce de rechange lay doon lu mu mënti doon daal mun nañ la forme même su dee itamit dans la formation les machines yi nga xam ñooy rectifier kii yeeg yooyu yëpp voilà mu ngoog yooyu yëpp daal am na fa avec la formation derrière avec la formation derrière ah waaw donc donc loolu la daal waaw mais xamal ne itamit Chine bii ñuy wax nii tey ci États-Unis la wéeru ba agsi fi mu agsi amul sax demal ma ñëw waaw ñoom Exim Bank États-Unis Exim Bank soo tàppee ci ordinateur yi da nga gis bu Chine da nga gis bu Inde da nga gis bu Dubaï da nga gis bu Exim Bank maanaam seen façon de faire moom la yeneen pays yu bëri jël euh, kii ci ba pare soogaa soogaa mën a demal seen bopp exim bank china soo ko gisee da soo ko tapé exim bank dalay wax china nangam sangam affaire de man baxna madam wa Wow. Wow. waaw waaw waaw machine sere na parce que

ci ci ci ben ré état la la wax de mille léegi waxuma la nak ci yenen état yi ci top donc dañ ci gël yow ya am problème yow ya xol ce speaker euh, dugub bu sew bi la wala dugub bu dijj bi la wala ak bon su ko defé euh, ñaata ki nga ko bëgg ak yu demee non dal wa donc loolu yeb dal manam du fa problème problème bi kañ moy ñom dañu bëgg xam kan nañu amal affaire wa ki ñi amal affaire suñu xasse ba wolu ben yoon rek. jàppal na moom vraiment euh, euh, kii nga daal arrivé nga mais nag ci wóolu boobu tamit chaque année dañ lay réava dañ lay réévaluer ah dañ lay xool man mii bërki démb rek la ma Exim Banque delloowaat chaque année damay dem ci Exim Banque ne ko man dama buggoon année bii di ñëw deux mille vingt quatre ba deux mille vingt cinq yow nga ubbil ma say bon mën mën a indi ay clients chaque année.

man ci euh, panel boo xam ne quatorze régions ñoo ci nekk euh, ñu am ku nekk looy liggéey li ngay wax ni yëpp am na ñu ko fay liggéey kon yàlla dogal tey jii bu ma ñëwee man tamit damay présenté wu wax loolu nga wax intéressé nañu ci wàllu financement bi mais ba pare ndax dinañ mën a xam euh, intérêt yi man laay njëkk a laaj naka lay tëddee parce que booy leb banque ku si ne jaar naa ci leb banque. mais intérêt yi ba xam naka lay demee tamit euh, dina ci am solo parce que booy dugg ci loo xam ni mbooloo ñoo koy def dafa war a nekk lu oyof waaw léegi nag euh, loolu laay laaj euh, mënuma ñëw ba pare du ma wax li nga xam ni moo ma fi indi léegi naka lay demee après question boobu laa la posé muy intérêt yi léegi bu ko defee ñu yeggalee lu ñuy wax incha allah. xaalis xam nga mais matériel nañuy jàppale seen dëkk. pour que matériel bi ñuy defar seen dëkk maanaam lépp lu mu munti su dee oto la su dee machine à kii la xam nga ñoom loolu nañuy pousse pour que ñu mun ko jaay léegi nag xam nga koy dimbale sa dëkk pour nga mun ko jaay ba pare nekk banque bi nga xam ne ku nekk da génn sa impôt jox ko banque boobu presque du wut intérêt waaw banque boobu presque du wut intéret intérêt bi daal du nekk intérêt bu diis en général c'est entre waaw ñoom promotion li ngay li ñuy def États-Unis ñoom loolu la ñu bëgg mu jaar donc suñ su su su suñ la mën a def taux d'intérêt zéro sax dañ koy def l'essentiel mooy na kay jaay produit mooy li ngeen di wut nii actuellement de mooy li ngeen di wut nii maanaam pour que seeni produit ñu mën ko jaay waaw léegi nag loolu ah su fekkee yow ci biir réew mi nga bokk di jël impôt nit ñi nekk benn banque di dimbale nit ñi pour que ñu mën intérêt bi du doon intérêt bu diis quoi Ah, de leur ah, de leur produit produit producteur Ah

loolu moo mun a tax artisan bi mën a gis boppam ci li muy liggéey nongo wax na ko léegi yow munoo am sa defar sa dàll teg ko sa magasin rek nga ko mën a teg defar ko tousa man mi dëkk Sicap wala ma dëkk Plateau mais du ma mën gis dàll ba di ko jënd xam nga waaw waaw donc waa koñ ba waa quartier ba ñoo koy mën a gis jënd ko xam nga tandis que nag su fekkee ne am ngeen une boutique en ligne

waaw mais marché ak xaalis non loolu du seen problème sérieux bi nag mooy mooy moom moo jafe moo moo jafe parce que da nga jël nit yóbbu ko États-Unis ñu nga dugal ko Exim banque mu liggéey ñu financé ko jox ko machine machine bi commencé kii mu jël takk jongo jongom commencé soo ko waxee fayal par mois mu muy dugg di génn xam nga loolu tamit dafay nekk li nga xam ni bon dafa lay nekk dans des positions yow mu ko fa yóbbu dana la indi problème

moo yore sa teraanga da nga ko war a jox su dee entreprise man sama site sama lépp ci lii laay jiital ka man sama bopp parce que moo indi sama teraanga donc man moom laay jiital waaw te dinaa la wax benn affaire gis nga américain bi Sénégal mi ngi laaj ci impôt 33 pour cent Ablaye Wade bi mu ñëwee daf ko wàññi woon 25 pour cent américain bi xam nga ñaata la may laaj cinq pour cent quarante cinq pour cent de sama chiffre d'affaires Sénégal mi ngi may laaj 33 pour cent mais américain bi li mu may jox. Sénégalais bi munu munu guma ko jox. mais américain bi ay Exim banque fu ne damay yor sama carte sama site lépp damay jaay ba xam euh, ay compte bancaire su ma ko soxlaa euh, Union de Arabes am naa ko su ma ko soxlaa euh, Japon am naa ko ci benn société bi ma yor mën naa jaay fii ba Japon am naa ay compte fu ne. mais loolu entreprise moom moo ko may mais lan lay laaj en retour loolu tamit dafay la 45 pour cent c'est c'est. il est à la chambre sunu doyen bu nekk formateur aussi national euh, defe naa fii ku fi xam artisanat war naa xam moom Lamine Kébé di sunu doyen bu baax aussi boo xam ne man moom daf maa bëgg boo xam ne nee na ma yow dangaa may ambition foofu loo ne dinaa la ca fekk ndax ak jógam moom yomb entreprise am moom bu jógee daanaka day taxaw ndax xale ya fa nekk bu génne daanaka xam naa doo am li mu bëgg. E, ma koy di geur mu jige ba Medina xat na trop mais ñafa na ba buuxante ko ba ñew mënu ñu ko ñak présenté puisque ki dafa ko battre secteur bi yag ko xeexal xam ci nak lu béré béré béré béré béré nek formateur aussi vraiment man mi gagné na marché formation de 540 personnes ak 3 FPT gagné nañ ko ak BNDAS sur ko déroulé ni am nañ coupe couture Tamba Kolda jigensor Dakar Thiès Ndar Louga et tout bu né ay groupe 30 30 moom mii yàlla def na ci baaxaayam am na ci yoo xam ne moom mii moo yore formation moom moo koy formé te formateur ba ko jox sax maanaam bi mu koy jox këlee ko gañe de waaye dafa ne ci dakaar ak région Ndanga région moom demin kabe moo kii ma ne ko xam naa ko sama grand la mu ne moom moom moo koy formé day animé aussi ay colloque aussi day def ay panel nit ku baax la daal maa ngi kontaan aussi ci sa teewaay mën nañ la ma présenté la professeur dafa moom problème bi ñu am dëgg dëgg dëgg mooy dox ñaari soxla ci benn bés

fi mu ne li ma gënoon la tax yàgg njiw nii sax loolu def si bopp fi mu ne su ma àggee ba mu pare tey ci lay door jot commande bi dëgg dëgg dëgg dëgg fi mu ne lay toog naan paa yow liggéeyu loo woon ndeke li nga doon def yëpp ndeke nekk loo woon di liggéey waaw nee na ma moom li muy def nii ci chiffre d'affaires ci vente en ligne bi ah ñun ñu ubbi entreprise toog fa di fa liggéey structure et tout ça munuñ ko amuñ ko munuñ ko franchement waaw kon loolu ma fekk ngeen nekk ci point bu am solo ñu waxaat ci leneen mooy ànd pour di li nekkandoo ci place maanaam structure structuré benn groupe boo xam ne dañ naan nañ ànd liggéeyee nii wax ci tudd notaire ñu dem toog ci notaire bi mu ne ñu leen nii doxalee leen nii doxalee leen nii buñ ko structuré ba ñu ne yow gis nga loolu suñ ci commencé woon bu yàgg. vraiment kon romb nañ fi mais individualisme bi ñu nekkee moo ñu sonal kenn ku ci nekk mënoo dem. ah te li la teree mën a dem mooy da nga diis. ndax sar sar sa entreprise dafa métti de. ñun suñ atelier yi ñuy tuuti tuuti ñu defee atelier mais entreprise la. mais ñun li ñu koy téye moo tax mënuñoo dem. maa yor technique de coupe bi maa yor montage bi maa yor vente bi maa yor euh, cherche client bi maa yor maa yor mais loolu yëpp naka la ko kenn di yoree ba pare mën a dem dem bu gaaw mënul nekk. vraiment war nañu xoolaat suñu bopp ah te ndongo ñu lay gërëm di ci devant tout le monde parce que kii dafa dafa nekk sama rek boo xam ne bi mu ñëwee dafa ne ma man dëgg naa damaa ñëw bëgg noo ma gën a foo ne ma nii rek ma xool foofu wax dëgg yàlla te loolu aussi ba bañ ko tàmbalee ba léegi dama cee bëgg li tax ma bëgg ci mooy day dem ba di ma présenté loo xam ne sax dama naan ah lii de moom c'est un avancement moom boo xam ne bii vraiment moom tàgguwoo ma sax ba nga koy dox mais alhamdulilah bi man nee damay ñëw ma ne ko naa ñëw fi ma ne ko quel que soit alpha ak lu mu métti métti danaa teew si incha allah su ko yàlla dogalee yàlla dogal ñu teew fa mais ku bëgg secteur bi la mais aussi ku ko xam la nag bëgg na ko aussi xam na ko li mu wax nii dëgg la formation yooyu fi nekk nii Tamba mi ngi taxaw Diourbel mi ngi taxaw Kaolack mi ngi taxaw Kolda mi ngi taxaw yooyu yëpp ñi ngi taxaw fi mu nekk nii maa ngi seet loolu sax naka la ñuy planifié woo ah pour mën a euh, def formation yooyu ak naka lañ koy kii noonu te vraiment loolu euh, nekk na lu am solo loo xam ne si jeune ah di liggéey ci lii ah ngeen ñu xam ne ci lii lay dox ñun ñëpp dañ ko war di jàppale ni koy jàppalee mooy ah li muy teg ñu xam ne lii kat du intérêt boppam mais intérêt ñëpp la bu ko defee ñëpp jàpp ci mu jëm ci kanam. jërëjëf kontaan nañ trop. yàlla yàlla jàppale ñu ba lii. jërëjëf président. salaamaaleykum. wala maa ngi leen di nuyu bu baax baax. je me présente Abdoulaye Fall président AATS association des artisans textiles du Sénégal. AATS nag dafa nekk benn cadre de rencontre ak d'échange buy permet à ce que les vrais acteurs se réunissent autour de l'essentiel pour discuter les vraies questions yi nga xam ni moo tënk suñu métier bi nga xam ni amuñu lu dul moom. suñu mission nag veille alerte contribution proposition pour que secteur artisanat textile bi nga xamné amuñu luddul mom ñu xol solution yi nga xamné mom lay laaj ginnaw bi ñu constater jafé jafé yi nga xamné secteur artisanat amna ko textile bi nga xamné ci lañ nek waye secteur jafé jafé yi nga xamné ne acteurs yi nek ci secteur bi ñu koy dund mu nek lo xamné ne responsabilités sont à partager wax nañ ko fi sank ñun téer yi am nañ ci part de responsabilité ñi nga xamné tamit dañuy ñëw ci secteur bi investir ci tamit di exploiter terres clandestinement nous tamit am part de responsabilité Sénégal part de responsabilité ñu gis ni organiser wu kenn par kenn def benn say résultat bi ñu secteur bi ñu organiser ko ba nga acteurs yi développer parce que secteur bi mënul développer tant que acteurs yi ko développer pour mu il faut que ñun d'abord ñoo dit tout parce que dañ ni bay saweewu Nous, ñun acteurs yi ñoo ci Nous jitu investisseurs yi fait di ñu fekk ci tamit fekk ñu et état Sénégal mëna a fekk ci parce que ñun ñoo Nous guider état ni bëgg dem état fekk ñu si ñun amul organisation formelul d'abord nous formaliser tous les plans fexé ñun am suñu entreprise yo xam lepp li nga xam laaj nako ñu def ko mais aussi fexé formation bi am qualité parce que constaté nañ secteur artisanat textile bima nek formation bi dafa déssé am qualité bari na ay école de formation mais bari na ñoo xam buñ fa jangé ba am sen diplôme buñ ñëwé buñ la ñawalé da ngay seexlu liñ lay ñawal c'est parce que formation bi amul qualité pourquoi pas duñu fexé jël téer yi nga xam xarañ nañ ci walu bép ñu fexé len dugal len ci structure yi ñu organiser wu jàppale xalé yi pour ñu formaliser wu jàppale xalé yi pour seen formation gëna am qualité ñu fexé jàppale len pour ci walu gestion nan lañuy gérer entreprise parce que problème bobu am nañ ko instant bi may wax ak yow ni ñu ngi association bi bot na 500 membres yo xam ne ñu ngi ci biir association bi mais lu ci upp tay 95 pour cent des tailleurs amuñu carte artisan xamuñu lan mooy njëriñu carte artisan information bobu dafa des te loolu il faut que ñu informer len deuxièmement état daf ñu desee jox cër nañ ko waxante état Sénégal cër gi mu war a jox artisan yi dafa des benn boo demee chambre de métier xar kanam bi mu yor sax méngoowul ak jamono par rapport ak yeneen structures yi nga xam ni teg nañ ko nañ waxante dëgg parce que boo demee chambre de commerce dem APIX dem DER dem FONGIP dem 3FPT ni xar kanamam méngoog jamono suñu chambre de métier xar kanamam méngoowul ak noonu jamono te loolu ñun ci boppam dañ ni pesum kanam boroom ma koy fajal boppam te nit ki pour mu jox la gëdd yow yaa koy liggéey bay uude nu mu la gisee rek la lay ëwalee il faut que ñu organiser waat man li ma doon laaj mooy ci wàllu formation bi académie bi est-ce que Euh, nombre yi c'est limité wala nan lañ mën a def ba nga xam ne membre yi nga xam ni boot nañ leen ñii ngi Touba ñii ngi Tiwaawan ñii ngi Thiès ñii ngi euh, Jolof ñooñu ñëpp ñu xool nan lañ mën a defee ba xale yi am formation de qualité jàngalaat leen ñu xam ni ñuy war a gérer entreprise petit et moyen entreprise ñu dooleel leen financement yi tamit xam nga problème la boo xam ne artisans yi am nañ ko muy problème mu financement xam nga nit pour mu liggéey il faut que mu am financement mais pour mu financer il faut que mu xam pour ah, financement bi mu meun ko liggéey il faut que tamit produit yi muy def ñu meun ko écouler te lolu yépp dégager nañ ko fi kon dal li mu bëgg dal moy ngeen fexé gëna jappalé artisan yi wax dëgg yàlla ci walu formation bi ci walu financement yeeg yëpp parce que tamit soxla nañ ko te ndaw ñi dem nañ ba désespéré ci métier bi dem na ba nga xam pénurie d'apprentissage amna na te loolu li waral moy xalé amatuñu yaakar ci métier bi te métier bi c'est un facteur de développement il faut que ñu accompagner accompagner artisans il faut que artisans yi dem jaay seen produit parce que c'est anormal nga produit ce produit mu mën dem ba États-Unis mën a dem ba france yu a am accès foofu ay mbeur ñoy dem di tukki ay musiciens ñoy dem di tukki classuma musiciens je n'ai aucun problème avec les musiciens mais il faut que ñun artisans ñu dooleel leen ñu mën am ay passeport artisan mën dem jaay suñu produit ñëwaat loolu moom il faut que tamit ñun ñu booloo jàpp ci incha allah rabbi jërë ngeen jëf. ma proposition mooy état bi ak partenaires yi wutal ñu ay espace de travail ay zone de ay zone industrielle ak centre commercial yo xamantani ne artisans yi ñoo ko moomal seen ñu mën ko organiser ba ku ne fa place ñu mën organiser ñu mën organiser liguey bi parce que tay suñu amon tay ay centre commercial yo xamantani c'est pour les artisans boba kon liguey bi dana yomb bu ñu amon tamit espace ay zone de travail zone zone industrielle yo xamantani dañu fay recasé des ouvriers ñu mën fa tok wax leen waxu leen yi ñu fay nekk am am fay stade de formation kon petit xoo bi nii ak fu nekk foo foo am foo bëgg place am fa kon dana dana mën a dañ defe naa loolu suñu jafe-jafe la kon loolu euh, partenaires yi ak état bi ak suñu président ndongo ci biir Sénégal ci kattan Sénégal nañ fexe ba espace yi ñu mën ko def zone industrielle ak ay centre commercial waaw ak village artisanal yoo xamante ni c'est pour les artisans nit ñi mën faa mën a nekk su ko defee ñu mën a génn ci place yu mbedd yi ak location yi.

képp xam ouvrier nga ci automobile ngay liggéey wala ci mécanicien wala ngay nekk nangam boo demee di fam place place bi condition yi nga fay am nga fay mën a nekkee nii nga mën liggéeyee su ko defee ñu liggéeyante suñu biir nekk ci benn secteur boo xamante ne secteur de secteur artisanal la loolu daal maa ngi koy ñaan te amee Sénégal dinaa gis dinaa gis réussir Sénégal waaw loolu daal di sant nag suñu président Ndongo Thiam ci taxawaayam ak pas-pasam ak vision ak détermination parce que ibi na panel

la euh, première vice présidente de association de l'association de présenté waat di wax man la BNDAS bu Pikine ñuy tamit euh, ndongo ci euh, lu da koy def ci artisan yakarna ni bu bu artisan yépp train ndongo kon ñun que ci engagement wam ci détermination am ndax yaakaar naa ni engagement yi nga xamante ni moom da koy jël ci artisan bi muy ci kuréel bu mu mën di doon nag ak bu mu mën di bokk ñu koy seede di ko fekkee ndax euh, bu fekkente ni comme ci ñun defal nañ loo xamante ni histoire la ci ñun histoire la ci ñun boo xamante ni fu nu toog danañ ko mën a nettali. muy biir musée bu gore nga xamante ni histoire Sénégal foire mosu fa am te ñun dem nañ fa exposition muy daaw ci décembre bi mu defal nu ko grâce à moom ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ay formation ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni tax na képp ku ci bokk ci benn daayas nga am fit am sañ-sañ fu ci nekk ngay wane ni yow artisan nga man yaakaar naa ne su ma demee ba am benn benn benn benn fit bi yàlla bokk na ci moom mi ndax lu may gis sama bopp ci artisan ci moom laa ko gise ci artisan lu ma am ci artisan ci moom laa ko amee BNDAS laa ko amee donte bari na kuréel yu ma bokk bari na kuréel yu ma bokk parce que bokk naa FENAF bokk naa ay yeneen kuréel mais li ma gis ci BNDAS musuma ko ci am ci benn kuréel wax fa dëgg yàlla muy ci ak ak lu mu mën di doon nag ci loo xamante ne danga koy def di ci gis sa bopp. def naa ko ak BNDAS franchement gis ci sama bopp ñu di ko remercier nag di ko wax ne fi mu teg tànkam bu mu ko teggi te bu ci mës a dellu ginnaaw ñun ñu ngi ci sa ginnaaw tey ñu ngi ci sa ginnaaw suba bul tiit bul jaaxle parce que ñu am engagement comme yow ñoo nekk ci sa ginnaaw di la jàppale chaque jour heure boo bëggee tiit boo geesoo na nga yem ci ñun te xam ne ñun ñooy sa ay jigéen ñun ñoo lay dooleel saa su nekk. loolu laa ne woon dinaa def témoignage bobu ci mbooloo yépp ñu xam loolu te xam ne tamit wax dëgg yàlla ñu ngi ci sa ginnaaw tey ñu ngi ci sa ginnaaw ëllëg. artisan regroupement regroupement des artisans marocanerie et cordonnerie national nekk it euh, trésorière u COFLET groupement des femmes leaders pour le développement nekk tamit présidente groupement transformation ce euh, forever artisan forever bi BN ben, BNDAS ñun ay gan lañ nous wa ñun ñu ngi avec euh, madame Bay nga xamanteni mom moy suñu présidente groupement groupe bi muy euh, collectif des femmes de pour le développement ñu sommes ay femmes transformatrices nous xamanteni dañu nek fi au niveau de Pikine di transformer céréales fruits et légumes ak ay en agroalimentaire daal en quelque sorte Wa, léegi nag moo doxoon ma ñëw tey ci euh, réunion bi assister mais man li ma fi gis am na solo wax dëgg yàlla kontaan nañ parce que gis nañ fi loo xamante comme ça ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci produire à chaque fois te du ñu am fu ñu jaayee euh, euh, vente en ligne bi dina permettre ñun suñuy produit mën a waaw ñu di gis ñu ñu mën gens jënd parce que ak manque de moyens aussi avec euh, euh comme li monsieur Cham monsieur Fall les mu wax ni avec euh, les banques là ñu avons xamante ni ci bénéficier avec euh, des matériels parce que ñun n'y a ngi liggéey mais problème matériel là nous am comme ni problème équipement comme ni ko artisan yi waxee léegi tout à l'heure nga avons ni sama président Mor Anta moom toujours da koy wax di di kaas

ñom tamit boo gisé sawaruñ ci métier mi parce que métier mi dafa metti parce que ko xamanteni yow da ngay ñew di liggéey benn dal suba ba ngon mëno fexé ba mu pare bokku ta ki nga xamanteni da fay ñew fekk machine bi ki pincé ki ñaw ki def ni nga xamanteni da ngay jël rek mën ngeen na sotal lu tollok ay 1000 paires par jour xam nga lool tamit pour euh, vraiment euh, amna na différence motax nak kon nak ku ñu leen bo ku ñu mëna bol dolel si lo xamanteni moy euh, accompagnement lool tamit amna solo lool te liñ fi gis wax deug yalla dal na suñu xel ñu ngi ci sa ginnaw di la ñaanal yoon wi yok lo yoon wi yaatu lol xewal gi yok ba nga mëna bot boot ci barke sayidina Muhammad ngi nuyu ñëpp nak ndonga caam sama frère la doomu artisan la ko ñëpp ndax doomu teug bo gis rek doomu artisan la te kon lolay sama métier sama papa day teug ci urus sama rakk nga ci village artisan bu Diourbel waye man nak ci village bu aar laay jaay te aar bi may jaay aussi jaaxal nañu loolu fu ñu koy jaayee ndax jaay bi léegi dafa jafe ñi ko daan importé ñëwatuñu te am partenariat bi ma fi dégg lu ma doy la waaw ndax man aar laay jaay sa waaw ba tey d'accord naa rek ah. mhm. Mhm. Mhm. loolu moom dégg la léegi nak kon nak ndongo muy sama frère ma ma ñew adhéré ci nak bokku ci te loolu moo ma indi gis nga kële ba andal tayer la dañ koo naxa naxa naxa naxa naxa jëndaloo ko lu ne def wa borom joon li ma ne ko kaañ dem nga xam ndax nit ki bokay yobbu yóbbu da nga koy yóbbu fa muy xamee ma ko déglul nga xam ndax dañ ko façon bu le naxay nañ ko ko ma nga nee toog moo tax ne ma man dotuma bokk fenn ma ko lay yobbu fo xam da fa bokk da fa gis sa bopp te fuma ma lay yóbbu man doomi ñeeño la duma ma la fo xamne dañ lay nax dañ fay gis sa bop di dégg di xam mune ma ah kon ne dina la top ma nga ne woo tax te ay ay tayër yu bari lañ ma yor it association des femmes xam nga ci dara groupement bu mag lañ bo xamne 150 femmes lañu dañuy organiser wu dañuy def lepp lo xamne jigen du koy def dañ koy def jaaykati jën yaa ngi ci ñepp nga ci biir say carte membre it mo lolu motax ma ne ko dama koy téye ba ngeen ñepp adhéré wu motax loy def da ngay wut nit ku ko témoin ndax diw nii la mel nii la mel da ngay wut ay ku ko fekkee ne maa ko fekke man loolu laay doxe parce que li nga li ngay bañ loolu laay bañ dañ may nax ndax fii artisan yëpp ñoo reelu ginnaaw ah. ndax loo wax dañ naa la dañ lay bubboo rek dañ lay nax dañ lay nax moo ñu tardeel artisan boo ne kaay ñu dem man ci village bii laa ne dangay indi information bu ne ñu ne dañ lay nax dañuy dëgg sa kaw jàll dem de ndax loolu ma ne ko loolu moo leen tardeel nangul ko la nax te xam fi nga jëm moom kuñ kuñ nax Do xam fu ñu jëm waaye bu la naxee ren duñ la nax dewe kon nak yalla nañu yalla doli sutura ndong fi nga tek sa tànk wa ku naxu ren duñ la dewe do re da ngay nangu ñu nax la bu ne di nga xam fi nga tek sa tànk ñaanal gudd fan gu ànd ak contant na naa lool nag ci li formation yi ni nga ko waxe rek non la ko informé te ni nga ko waxe nit non la kay defé kon ci ab yalla na yalla doli sutura. wa mané salam alaykum honneur aux femmes deglu len jigen ñi ñoy wax. maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di présenté wu man la euh, Adja Kiné secretaire secrétaire général de BNDAS mhm. secrétaire général de BNDAS di taxaw nag ci ginnaaw président boot kàddu jigéen ñëpp ji fi nekk ak ji fi nekkul yëpp boot naa seen code di rafetlu vraiment réunion bi di remercier suñu partenaires yi di ñaan yàlla liggéey bi dem ak ñoom à long terme mais di remercier képp koo xamante ne rek yor nga sa entreprise président doo nga invité la nga ñëw tey répondre ci appel boobu mu woote ñuy ñaan yàlla suñu borom bi ngeen gis ci seen bopp te lépp luñ ci def mu am suivi loolu la ñuy ñaan yàlla. di ñëw rek tuuti nag ci président Ndongo Thiam parce que dañuy wax ne secteur artisanat ku nekk xam ne ne am na problème mais ak président Ndongo Thiam ñun jigéen ñi on est toutes fières boor na ay kuréel yu bare nag rawatina Bayandaayes nga xam ne am na ay jigéen am na ay góor may wax ci turu jigéen ñëpp te xam naa ne lu ma wax loolu la góor ñu wax. président jigéen ñi ngi lay remercier bu baax a baax ci ni ngi leen bootee te naxoo leen ngay dem di wuti ji ay marché di indi di décrocher ay partenaires di indi di ñu jox ay formation ji indi am bët bu rëy boo xamante ne sa gis-gis ak sa suwe mooy yóbbu jigéen ñi def leen femme leader ñuy dem ak ñëw ba du ñu am benn problème ci bépp secteur bu ñu mun te nekk ci artisanat ci bépp corps bu ñu mënta nekk ci secteur artisanat président jigéen ñi mënuñu la fay vraiment lii rek wane na ko tey lii duñu ne guléet yàgg nga ñu indil ay surprise yoo xamante ne formation la partenaire yi ci gis suñu bopp ku ci nekk rek nga dolli ko lu mu nekkoon gën ko def jàmbaar ba nga xamante ne dafa am fit su koy na ture wax na ko léegi xam nu muy demee xam fu muy teg tànkam may wax ñëpp rek ne président mi xaw ma ko yàq secteur waaye yu yàqoo ko te ak yow secteur artisanat am na avenir ñoo ngi lay remercier bu baax a baax a baax di la ñaanal yal na la yàlla jàppale te yàlla oyofal yeen bi di la wax rek jigéen ñëpp ñu ngi ci sa ginnaaw voilà loolu daal moo doon kàddu ma ko ci remercier li ñu war a wax yëpp xajul fii maa ngi koy ñaan nag yéen ñëpp surtout surtout plaît nag surtout maa yow madame euh, ak euh, soxna si Diallo ngeen dellusiwaat ñu wax waxtaan bu baax sinon bu dul lool rek dañuy parce que bu ñu rencontré gëj a gisee ak toogaat fàttewaat affaire yi day am lu bëri lu ñu manqué maa ngi jégalu ñëpp nag di waxaale ni tamit dafa am son benn tonton bu gaañu muy euh, Babacar Mbow bu Ndéem artisanat boo maa ngi wax ne di sàkku ñëpp ñu ñaanal ko muy sëñ Babacar Mbow bu Ndéem waaw bu Ndéem waaw artisanat dañ koy saraxal samedi bon ñu fan yëpp ñu ngi ci woon di wax ni liggéey na ci aara bi lu rëy rëy rëy non parce que xam groupe bi wax dëgg li ma wax rek doxatul maa ngi woo ñëpp ñu ñëw ñu ànd ñu liggéey ñu dellu dellusiwaat ñu liggéey ci groupe bi parce que lu bëri liñ fanaan def am na ay manquement yoo xam ni mënoon nañoo dépasser fi ñu toll nii mais bu ñu gisee réunion toog ñu toogaat ba ci yàgg ñu disparaître waat day xaw a nekk leneen liggéey bi nañ ko àggale foofu maa ngi woo ñëpp. lii gisal ni fi état defar lu mel ne ay siyaat salon international de Diamniadio nga xam ne président la réew ñëpp ay ñëw toog. loolu nag feuille bi ngeen gis nii loolu lay liggéey léegi bu ñu paree ñun waa BNDAS président la bu fi man a toog nag dana ñëw ci jataay bi bés boobu bu soobee suñu borom yéen doog ñun deux jours yëpp di ko ñun. ak luy kilifa ci réew ba bitim réew ñoo koy ànd ak ñun loolu moom pour ñu ba teel ko leeralal muy académie de l'artisanat boobu ñu leen di wax du affaire ay ay foire ay mbedd yeeg ay ruq yi nii de lii ñuy def ministre de l'artisanat yi fi jaar ba génn dem sax kenn amagut xelum tëgg ko moo tax kayit bi du lu ñuy jox nit mu téye ko nii sax ñun lii projet BNDAS te dañu koy liggéey insha allah mooy li ko naqar kii li bëggoon a présenté bu fi présenté mais xaju fi xaju fi projet am ak engagement am ci ñun ak intention yi sama borom àggale yëpp ndax yéen a ngi may déglu soxna yi ndax kilifa la ñëwul pour jeter ay fleur ñëwul pour wax lu ko neex lu ñu neex li muy wax lu mu xam la lu la ndax ci lay dox ci lay yëngu avenir am yëpp Amérique la ko def ba nii avenir Amérique la ne nii dafa amoon rendez-vous fi mu toll nii ak syndicat yooyu noonu benn rencontre bu mag bu bu ñu amoon nii wallaahi yàlla yi moo ma doon préciser pour ma ñëw mais ambition bi fii ak amoon bi moo ko mujj téye ba dafa mujj engagé wu mënu jóg ndax point bu ñu dugg daf koy intéressé te li mu wax a yéen daf ko ñime moo tax bëggul dem te déglu woon bu ramassé woon boobu seen réponse yi. monsieur Mohamed Diak professeur Mamadou Lamine Diak bii du professeur aussi dafa pare yàgg na ma manager pour muy leer.

am na ñu ne ci groupe bi maa ngi dégg ñu ngi kaas ak ay audio day manqué gi BNDAS bokkut ak panel yu bari man nekku ba fa di délirer nit ñi BNDAS panel buy liggéey li nekkuñu fa man pour ay naan joxe leen nee naan wax naa leen ko fii cotisation xaaruma ko ci yéen ku ne ak ni la yàlla man yàlla ma bindee dama war a jël di jox nit ñi man loolu laa gëm moo tax du laaj sama benn organisation cotisation ku ma ëpp engagement ci ay membre amut wane nañ ko fii ak lii ñëwut di bind ci suuf ak di wax seen gàllankoor di jënd carte de membre junni ñoy association bu ko fi jaay fi ci Dakar kon defena ñoo ñu bañu ñoo ko cotiser ay wër ay 1000 francs ki témer carte de membre bu BNDAS ku ko yor junni nga ko jëndé ay témer fa am 1000 francs neeku dama ko critiquer dafa am fofu ab jàngale bu sew bu ma ciy wane ñëwuma pour naan dina ma indi xaalis wala dina man damay moytu sa xaalis ak nit ñi bugguma ci yoy ñun carte de membre 5000 lañu jaay kurel gi bari na lu muy dox lo xam ne man damay lamb sama poste ko def parce que jaral parce que man victoire la xam quoi motax non noonu la ma yàlla bind moo tax du te fi senegal surtout sun secteur boy xare do dem parce que dañuy xarante ñun ñep kurel boy dañuy taxaw ku nek di am foy xaar sa morom ku ne di am xaar sa morom kañ lañuy ñuy dem benn ñaareel du parallèle bu ñuy déliré ñu fa di mayek ay léebag ay len rek ay wax ju du jeex ñu ci yoy mom motax farata nag ak information bu am solo lañ ko dugal ñu débattre ci mu jeex booba ci suuf ñun ñu ngi liggéey ñun nuñ ci nuñ ciy génne aide Covid 19 ñu ngi koy war di wax mosu leen dégg benn yaas toog ci a am man maa ci suuf di liggéey di dem ca bureau yi nga xam ne nii boo demee chambre de métier fa la ñuy déposé ñoom fañ koy yóbbu ca ministère dama leen a romb ñu man foofa laay dem man di ko fa yóbbu samay kayit tey jiitu sax ñoom yu chambre de métier ak ñi fay déposé ci déjà même chose dégguñu ci sama waa kër ñi ma bind waxuma ne ku ma ku nekk sama biir groupe bindu ci àll ba waxuma loolu de kayit bu ma yorul man mënu ma ko plaideel mënu ma ko topp xaw ma egg na xaw ma eggut mais man yi jaar ci man fa ma joxe samay point fukk yi may joxe ne dem leen bindu ji foofu parce que man noonu laa bind loo mami mii toog xam nag dara ci ñuy bind la bokk waaw ña fay dem di bindu ji la ñu bind bu ñu paree ñu dajal lépp man jox ma ko man dinaa def kilifa ko ne ñi ñëw waa Benda sama waa kër yi nii vite fait ñi mom xoma lan way moom gënël ma leen mom sama yo parce que duma top topp kayit boo xam ne duwal ma ko maîtriser wu ma loolu aussi suñu membre sédé nañ ko aide Covid 19 bi ñi jël saaku ceeb di ko jox sama membre bu ne may jël saaku ciép di leen ko jox teg ko pikin ne ñëw leen jël su dugal ko ca groupe vidéo ko jógee am nañu dem am nañu fekk yow ci nga bokkon yaa fa fekk nga ko jël nga sax saaku ciép dal ko joxaat nit yow ne yow garaaw jeex na dang ko koo joxaat ni sa boss ndax ma magam daa am xaalis lañ doon jaay xam naa boba Macky Sall sa amul xeluk Covid dañu wara jox nit ñi ay tiep sa aqulahi taala ra sant ma sant ci am kenn joxe ko fi woon booba masque ya bañu koy ñewit it masque yi ma fa récupéré yépp ci panel bi laa ne am nañ tangam lo de masque yo xam pour pour BNDAS la samay masque masque 300 francs la ku ko jël bo ñewé ba paré fo tok ci région boo mën bokk boo ñëwee ba vidéo wóol ma ni pare na ma wax la fa nga koy yóbbu nga yóbbu ko fa mayee ko fa nga defal ma loolu rek ma wéef la sa xaalis wala sa orange ba ne foo bëgg ci bés bi fi nga taxaw ñii ma ne leen ci prison yi ñii ma leen ci ay daaray alxuraan ñu dem ñoom it yóbbu ca seen i daaray ñii ci seen i prison ñii dem ca seen meeru dëkk video ko nekk Kaolack ñii Tamba ñii Sokone ñii Kolda ñii Ziguinchor ñii Dakar wan ma ma gis ma ne ko temps de masque nga waxoon moom nga mënoon a jël moom lañ la joxoon mu ne ma waaw su koy koy turee doo yaa seede loolu su koy mais ci la bokk ma na ko yaa seede loolu aussi yi ma fi expliqué yow yëpp yaa ngi fekk na la fa ceeb baag masque yaag yëpp laay leeralal nii ñu ñu joxe ñu yóbbu leen seen xaalis wax ja jeex fay ma fi yoruma benn membre bu ma jox ay masque la fay ay fukki dërëm mbaa ma naa la ma la jox ay tiisi détails yooyu man du ma nekk jël leen Europe ak ñuy wax it su jotoon fu mu su mu doon su ma defoon sélection fu mu jël ñeent ni defal mu ko defee ñii ma sélectionné leen noonu ñëpp ne leen wuti leen carte bi fekk ko amut nga wuti ko bu ko gars yi di wut muy def ay atit man ndongo fu ma ko dugalee ginnaaw suba man ma jot ci yàlla may na ma loolu te lu dul lii noonu laa koy amee ma dem dugal samay carte samay membre ñu génneel ma seen carte parce que ci fulla lay dox yépp man bu ma demee fa ma war a waxee ñu jox ma ma war leen fayay dem ne la demal tel banque nga demal sa bopp yow nga ne ma ne la nangam ngay fay pour ce dossier de visa parce que dossier de visa banque ngay dem Ecobank nga fay ñu bu dee États-Unis cent vingt mille deux cent cinquante francs nga dem fay ñu jox la sori si ma ne la photo rek envoyé ma ma boole laa kii mën sa dossier outre sa réservation sa invitation sa lépp mu génn.

ñu créé invitation officielle pour membre yi BNDAS yi nangam sàngam bu jaar fi mu war a jaar ba ñëw ci ñun bañ joxaat ma sama lettre de retour ma xam ne ñii ñëpp kale nañ ma rendez-vous la nangam la nangam ma wax ko ñooñu ñu dem jëli seen rendez-vous dem fa de ñu dem ma boole leen ak ki leen di monter seen dossier mu monter seen dossier nga dem fay sa visa dem na ànd ñu yóbbu la nga dem nga déposer sa visa bu génn muy sëf c'est ça lii nit boo koy dimbali waroo ko utiliser man loolu laa gëm defoon nañu foire ak yéen ak ay américain gore exposé woon nga fa exposé woon nga fa kenn fay ci benn stand musuma def sax foire moom ba ma dalee def foire sama organisation stand yoon dama koy may sama nit formation bu ma defal samay membre boo pare la ngeen la ma leen formé lépp dama leen koy may may leen may leen outils équipement bi ngeen di liggéey dama naan leen jël leen ngeen téye ngeen koy liggéey ci koñ bi fii ñoom ñoo may seede ñoom jigéen ñi yëpp ba ci ñoom mamisaar ci ñi mujje xam nañ ci dara wat dina am vendredi aussi même ku bëgg sétane ci sun formation bi ñu def bu la neex nga ñëw fi ñu ñëw nga ñëw di nga suivre wa nga ñëw di nga ci sétane di nga xam gan ñi dina ñëw dinañ liggéey yéen gën gis ñi ci mëna togg mbaxal wala akara yow ki daal sant akara ki ki mbokk wala kan mo ah def yooyu yu mel nonu dimbali ma indi ma yooyu képp ku ci am cadeau boo mën a may tubaab tubaab cadeau la xam gan te naa lu jox benn secret xaritab tubaab boo ko am boo ko bëggee da nga koy xool nga indil ko kado tubaab dafa reconnaissant ci loolu day dem ba réew mu nekk toog na xelam ne yar ci yow da koy yëkkati rek daal ne oh Sénégal diw moo mayoon lii noonu mën na xëy rek yow wutal invitation ne la bëgg a seet si ñoom noonu lañu mel bul ko jaay sa mbubb mi rafet na la sa kii rafet ngay pare naa ay sii waaye mu bet la nga xol ko amna na ñaar doomam yu jigen ay jang lañ nga yorup ciak wala sa mbubb wax bu ñak fay def wala sa dara ñu rek ne ah di lii man maa la ko jox da mu ne ay ah, yu dal ko tal wax papa ji yaay ñu ne tuddu nga wax mu bind ci téléphone am noppi jeex tak na la xarit ba ci seen bay tay milliardaire lañu ñom lolu aussi duma leen nëbb man samay secret la quoi lolu lolu ñu yàgg seen bir ñom ko xala man non laay doxé ñom bu ni di alal demal wuti ñi ñi ndax di tay yoré alal ma ngi leen di sante di len gërëm di len xamal ni aussi di sant ñi aussi samay boy lañu ñu nekk ci panel yi ñuy wax euh, FEDAP nekk ay jeunes FEDAP aussi képp kuy dëkk ci war naa xam fédération des artisans de département de président Massa Jógee jiite ko bo sumay dëkkandoo lañ sumay natango sumay su mamba aussi nekk boy jambaré yoré panel ba di ci liggéey liggéey bu rafet bëgg secteur bi aussi ñom tamit di ci yëngu nekk ay tailleur secteur bi moo leen intéressé to ñu BNDAS toppatoo ñu top e toppatoo ñu ay ACS ak. ci am président bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal ñu woote fi tay benn rencontre ici à Guédiawaye ci centre bi ñu wax ICA e avec ak sunu directeur euh, vraiment muy monsieur Mouhamadou Lamine di kenn ci secteur bi monsieur Diak lañ ko gëna xamé euh, nek consultant du conseil aussi site BNDAS nekk mon management aussi site de manager ci BNDAS en tous les membres du BNDAS nous avons une rencontre d'échange bu am solo bu ñu secteur artisanat bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal qui est points ñu am ci ben rencontre ben festival bu au niveau des États-Unis qui ville bu Caroline du Nord à Nashville au euh, mois de septembre nous avons ci échange yu am partenaires avec nos filles, avec nos membres avec nos kilifa gi ñu aussi point aussi des boutique Bo xamné artisans yi loolu lañu artisans yi am nañ problème accès au financement am nañ problème accès au équipement aussi am accès aux euh, choses euh, jaay seen ay produits accès au marché public ou national comme international C'est ce point yo xamné ni dafa am solo trop trop trop ñu trop, trop, dañ trop, trop, trop, ñu def ci waxtaan mu doon liggéey yo xamné yomb na mais avec la nouvelle génération ak euh, kilifa monsieur trop, bi ñu trop, ak partenaires ñu trop, trop, liggéey am nañu yaakaar ni dinañ ci sori fi aussi trop, président de monsieur professeur monsieur trop mom dina gëna yaatal ci point yoy nga moñu fi jërëjëf. ok merci euh, président moi mon nom c'est Mohamedou Moustapha Diack euh, un partenaire du bloc national pour le développement de l'artisan euh, au Sénégal ce qui nous réunit aujourd'hui le mercredi 6 euh, mars au niveau de notre campus de Géjaway, C'était une rencontre de partage, une rencontre de partage pour la mise à niveau euh, de l'artisanat et la capacitation aussi. Quand on parle ici de mise à niveau, c'est surtout au niveau des organisations euh, artisanales et la capacitation, c'est au niveau des membres ou du personnel même. Et par rapport à cette mise à niveau, euh, nous avons défini euh, quatre axes. Les quatre axes tournent autour de surtout la promotion de l'artisanat, euh, le financement aussi et surtout aussi le problème d'équipement. Et pour ça, nous avons un contact noué, un partenariat avec Exim Bank euh, qui se trouve aux euh, United States, euh, avec Exim Bank qui aujourd'hui vont accompagner ce secteur dans la mise à niveau et la capacitation, notamment sur surtout l'équipement et la formation des artisans. Et en plus de ça, pour la promotion, nous tous nous avons vu que le marché de l'artisanat actuellement souffre surtout au niveau de la vente. Et pour cette vente, nous avons mis en place une boutique en ligne euh, dénommée Bana Bana. Avec cette boutique en ligne maintenant, euh, l'artisan peut postuler ses produits et vendre euh, en, en, ligne avec des paiements aussi en ligne et surtout aussi qui va permettre vraiment à bien vulgariser le produit artisanat sénégalais. En plus de ça, nous avons jugé nécessaire d'organiser la première académie euh, artisanale sénégalaise. Et cette euh, académie qui va surtout travailler sur euh, surtout cette mise à niveau toujours qui revient et la capacitation, vraiment comment aider l'artisanat sénégalais à bien se proliférer au niveau euh, international et sous-régional. Et euh, le tout sera bien sûr euh, corrélé par une organisation d'un festival à Nashville au mois de septembre 2024. voilà donc ci tënk ci wolof ma ñëw ci wax nasara maanaam tey lu ñu fi tax daje fii ci àllarba euh, juróom-benn fan ci weeru mars muy weeru aussi sargal jigéen ñi. di remercier bu baax euh, soxna yi euh, di leen ñaanal borom bi defal leen barke ci li ñuy def. tey nag daje bi benn dajale bi nga xam ne dañ doon daje pour waxtaan maanaam mbirum artisanat naka na ñuy def ba ñoom yii ñuy jaay. Euh, ñu mën a jaay bu baax au niveau euh, ci mbitim réew ak jaay aussi ci biir réew mi ci loolu ñu ni loolu il faut ñu def benn euh, kii boutique bi nga xam ni boutique bi ci internet lay ne léegi ku bëgg ci jënd rek bu duggee ci boutique bi rek dina mën a jënd dina mën a fay aussi ci internet te du bouger fu mu nekk te bu jëndee ba pare aussi dinañ ko mën a livrer fu mu nekk boutique boobu nag nañ tuddee baana baana Euh, benen bi aussi ñu and ci ak benn partenaire bu naan Exim Bank nekk États-Unis Exim Bank dafay ñëw moom pour xool naka lay jàppale artisanat bi ci wàllu équipement parce que ñëpp xam nañ ni euh, foofu artisan yi am nañ fa ay jafe-jafe mais aussi ci wàllu euh, formation naka nañ leen di jàppale ci formation parce que nit ki boo ko joxee équipement bi di nga ko ci former naka la koy utiliser et tout donc Exim Bank boobu daal ñu ngi koy rafetlu torop Euh, am na aussi beneen lël lël bu mag bi nga xam ni ñu koy wooyee académie euh, de l'artisanat muy gulet fii ci Sénégal académie boobu xam naa ci fan yi di ñëw dinañ toogaat dajewaat ak waa BNDAS pour wax kañ lañ koy organiser te atelier boobu moom boo koy organiser faw nga ànd ci ak lii di euh, le gouvernement du Sénégal ak bànqaas yi nga xam ni ñoo wër artisanat donc euh, di rafetlu vraiment euh, te daje bi tey di remercier le président Ndongo Thiam ak ñu mu àndal ñëpp euh, vraiment di leen remercier di ñaan rek sunu borom lii ñu tàmbali nii mu defal ñu ci ndam bu ànd ak barke jërëjëf jërëjëf